wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi bu Touba ca kanam tey mu dellusiwaat ci daara kafaalatul yataama kër maam jaara di bërëb bi nga xamante si ni moom la ñu toppatoo xale yi nga xamante si ni benn ay jirim lañu wala sax seen wayjur néew doole lool ci yor leen ak tout tànk yi nga xamante si ni des leen di for léeg-léeg ci mbedd mi ak yu ni mel tey commission sociale bu Touba ca kanam ci njiital Serigne Mourtala Mbacke ànd ak délégation bu takku ñëw indi leen lim ko baaxoo defee ay ndimbal yoo xamante si nii dina mën a taxaw daara ji bu baax a baax. yàgg nañ fee ñëw ngir ay tout tànk yu fi nekk yoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. te ku ne xam ne ay xale lañu yoo xam ne ay baayoo lañu di ay jirim te laaj ndimbal lool te bâtiment bi bokk ci ndimbal loolee nun waa Touba ci kanam commission sociale nag bu ngeen gisee sunu taxawaay ak micro bii nu yor dend ak soxna sii nga xam ne moo ànd ak waa Olpalina Maam Jaara te sëriñ Fallou Ndiaye nekk ca ak Serigne Moustapha Diop da xam ne sunu tànk yi tànki yónneen yu jóge ca kilifay Touba ci kanam yàlla kilifa ya bu kilifa ya nag bu ma ko waxee jiital ci sëriñ Habibu moom sëriñ Fallu te doomam taxaw ni di sëriñ Mourtala jiite commission sociale bii may waxe kon da ngeen xam ne lii bokkut ak ñaari téeméer yi nga xam ne moom la murid yi dajale di ko def ca Touba ci kanam aw ndolleen la aw làcc la ab paq la boo xam ne daa bokk ci Touba ci kanam ñu koy jaayante weer wu dee wu ne kenn ku ne ñu laaj la la nga man xeebu nu yéemu nu ngir dimbali baayo yi nga xam ne ku fi ñëw sa xol dana tooy lool da nga xam ne ñii kat ay ndaw lañ yoo xam ne jar nañoo dimbali ndax lu ne ngi ci seen biir te kenn féetewu leen fenn amuñu ay taxawu tey nag commission sociale ñëwoon ngir jàppale leen lii ci sunu ginnaaw te lii nag bokk ci la weesu. muy tànk yooyee nga xam ne ñëwoon nañ ko fi euh, dox ca jéego yooye ñu ca doxoon tey nag nu ñëw fi indi fi ay mat laa yoo xam ne yaakaar nanu ne mën nañ cee dimbali ko dolli ko ci li fi ne woon indi ay basang yoo xam ne yéen ñi fi nekk dangeen ci mën di jullee ay jullikaay la indi fi dugub joo xam ne jàpp nañ ne ruy ya ñuy def ak fonde yaag ay yëf-yëfaan ya def danañ fa mën a féete gone yi nun waa Touba ci kanam commission sociale liggéey bu am solo boobu nag nga xam ne commission sociale bu Touba ca kanam tey def na ko fii ci daara Kafaalatul Yataama kër Maam Jaara nekk na lu mu baaxoo def waaye commission sociale bu tubaa ca kanam yemul foofu am na yeneen mbokk taalibe yoo xamante nii des leen di dimbali ci biir commission bi muy ñoo xam ne dañoo amay ay jafe-jafe ci seen wàllum wér-gi-yaram ki noonu. ñi nga xamante si nii dañoo am ay jafe-jafe ci li nga xam ne mooy seen dundin ak yu ni mel waaye commission bi ay taxawaayam gën naa yaatu ni ki événement yi nga xam ne mi ngi am saa su amee ñu dem ci quartier yu sore yi nekk ci dëkk bu sell bi di Touba ci taxawu leen ci lépp loo xamante si nii lu ñu yittewoo la bu ñu sukkandikoo ci soxna maam Diarra mi nga xam ne moom la ñu fekk ci daara ji mu ñuy xamal ne xale yi fi nekk xale yu takkoo takku la waaye muy sant commission sociale bu ca kanam kër gi ki njiital sëñ Fallou Ndiaye mu ngeen wax ak sëñ Moustapha Diop Koki ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko yor liggéey bi rafetlu nañ ko lool macha allah tubaar fakàl la ñëwoon ngeen fi noon nga ko waxee ñëwate ngeen fi te ñu ngi leen di séentu te ñu ngi ànd ak yéen liggéey bi di ànd ak yéen seen liggéey boobu yi ci kàttanu yàlla ak mbaax ci barkab Serigne Touba ak sëñ Fallou ak Soxna Jaara ak Seex Abdou Khadre Xayratu waaw xale yi nag ñi fi nekk bari nañ waaw li ma ko mën a waxee daal bari nañ ndax ñun dañoo am ñoo xam ne ñoo nekk ci biir kër gi di nàmp am ñoo xam ne dañoo nekk ci biti kër gi di nàmp ak nga xam ne duggoon nañ ba génn nga xam ne barki démb ku ñëw ci bis bi soo ñëwee da nga fi fekk ñoo ñëpp ndax ñëpp fa dajal dajaloo woon kon lim bi takku na takk boo xam ne gi ci ñi ñàmp ak ñi génn moom wax dëgg amatub àpp waaw amutub àpp amutub yemukaay bari nañ loolu daal mboolal nañ waaye ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax a rek di sant sëñ Tuubaa Xaadimu Mustafaa mi suñu yaakaar tey ak ëllëg di sant mboolem jullit yi yëpp di sant mboolem taalibe sëñ Tuubaa yi nga xam ne moom bay boobu man liggéey bi ñoom ñoom ñoo ko moom di ñaanal sëñ Muntaxaa nag mu yàgg fi lool te am am ak liggéey bu am solo bii nag mbokk yi ak yu ni mel te commission sociale bu Touba ci kanam di ko taxawee ay jaayante rek ñoo koy def. maanaam jaayante yoo xamante si ni commission sociale bu Touba ca kanam moom moo koy def waaye tamit kenn jiitiwu ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa mbokk yi liggéey boobule bépp murit boo xam ne bëgg nga cee dugal sa barkeelu mën nga ko dugal ci numéro banque yi nekk ci suuf wala sax numéro compte orange ne bii nga xam ne képp ku ci dugal sa jaayante dina agsi ci biir commission sociale bu Touba ca kanam wala sax nga ñëw ci siège bu Touba ca kanam di nga fi fekk Serigne Mourtala sekk nga mën koo jox sa jaayante ngir mu mën a dugg ci biir commission sociale bu Touba ca kanam ngir ñu mën a taxaw mboolem néew ju doole yi nekk ci dëkk bu sell bii di Touba. wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat